procureur de la république dina def appel parce que d'accord ci liñ àtte lan la ñu mën a xaaraat à nii vraiment ngir jàmmi senegal jàmmi Sénégal daal li ci njëkk senegal faa ngi dellu ci alxuraan dellu ci mag ngi baax ñi dellu ci dëgg fonk daara yi. billaahi la si laa ilaaha illaa huwa fonk yii ma la wax Sénégal du nekk jàmm nañ bàyyi nag ñu naan Sénégal lu bon du fi am du tàkk nangam nangam ñaata réew ñoo am ay wàllu bi suñ bi ña ngay tàkk bu demal Nigeria gi. ñaata borom xam-xam ñoo fa tëdd. demal càdd gi demal Zimbabwe demal Rwanda demal Burundi dëkk yi ma la wax yëpp. Sierra-Leone ñu xam ne sa réew la fa xewoon gis nga ko Libéria gi bu caastay loon tey damaa toog benn kilifa gu mag kilifa gu àdduna benn ministre beneen waa la mu woo ma ñaama moom ci réew mi bene xam nga man koo xam ne yaa ay réew ñu ngi lay woo nga leen di wax seen xalaat. Mm-hmm. Sénégal lañ moo tax ñun xamuñu nit sénégalais sénégalais mooy jàng mën naa ne kéetal dem ab beneen réew di leen dimbali. Sénégal nekk médecin ay fi lool Sénégal gi xamuñu mu ne beneen réew di leen dimbali yoo fi société bu mag ñu koy xeex mu ne beneen réew ubbil leen ko. war a nekk bitim réew war a andi ay yu bari ñu jafet ko conteneur bi ba xam ne bu ñëwoon tey conteneur bi du génn. Mm-hmm. lépp loo xam ne étranger mi ngi koy am rek. bu ñëw day yomb ci moom mais senegal Sénégal duñ ko yomb ndax duñ ko xay duñ ko xay duñ ko xamee moo tax ñaan ndox bu baaxoon mbokk bu baaxoon ndox du dogg jën ñun Sénégal ñoo xeexal na suñu biir boo demee tëgoo gi tëgoo gi rek mm. banque yi fa nekk yëpp pourtant ñi fa nekk léegi ñi fay liggéey yëpp ay Sénégal lañ tëgoo macha allah ñaareel ba bi ma kilifa gi wooye ñu waxtaan mm-hmm. Mm-hmm. xam nga ne président benn tey tey tey tey la def benn déclaration ne du def troisième mandat xam nga loolu ah président benn ba mu ne du def waaw beneen waaye ñoo ko sàkkoor ci yow mën na leen non ensiw xam nga loolu te pourtant moo moo fi jële yaaya ni jële bu rafet boobu maa nga fa jette la ba te man bi ma ko kilifa gi waxee ma ne ko ah loolu da waxoon na ma ko ca Nigeria otal naay kon boobu maa nga fa toog dara ma ne ma xamaa don saa si mbésu bu Congo Idriss de bu caad boobu xam nga àdduna dafa nekk loo xam ne wax dafa jafe may dégg moo gën a jafe nit bu dara xewee li mu wane du nit nit li mu nëbb mooy nit moo tax yàlla day xool nit ki bu bu bu nit bu wéetee rek ci lay am yàlla bu wéetee ci ci la yàlla nekk ci moom. mais fekk mu ngi nekk ci nit ñi rek. Mhm. yàlla nekkul ci moom. macha allah est-ce que euh, sëñ Bara Niane en tant que koo xamante ne bi itam euh, voyagé na un peu partout à travers euh, tey. ci sous région bi ci yenn yi dëkk yi nga xamante ne bi dafay faral di am ay jafe-jafe ci wàllu nguur ngay dem di ñaanal yooyu le président tey suñu xam-xamu réew euh, itam faw ñu jariñoo ko fii réew mi toll tey sa ñaan ci réew mi lan la war a nekk que président bi def troisième mandat wala mu bàyyi dëgg-dëgg wax dëgg yàlla ndax coow li bari na. Macky Sall man personnellement. Mm-hmm. li def Sénégal ci li mu àggale. yu ëpp nag projet Abdoulaye Wade mais nañ xam ne senegal même fu du Sénégal. Hmm. continuité la état continué continuité la bien sûr bien sûr. da ngay def autoroute boo xam ne dafa jëm Touba. Hmm. bind nga ko mais commencé goo ko kii fa ñëw moo ko ràggale. Macky lim li mu fi réussir ci ay pont li fi def ci ay tëli gisuma benn présidence bu ko def senegal yàlla dëgg la bëgg un point. d' bi. sénégalais yi nag donte ñu bari nee nañ ànduñu ak moom. Mm-hmm. mais am nañu ànd ak moom. yàlla mënut a def ñëpp bañ la mënut a ne. Mm-hmm. xale yi ndaw ñi ñu ci ëpp yàlla def na ci seen xol Ousmane Sonko. Ousmane Sonko ci nekk. moo ci nekk ñu ci ëpp que ni ko dëgg ngay wax alhaqqu min rabbikum man saa fa man saa fa lekk foofu nii da ngay wax dëgg. Mm-hmm. léegi man xam nga li ma ñor man. kii defar Sénégal moo ma ñor man. defar Sénégal waaw Sénégal nañu bàyyi di am di am maafe. bëgg sëpp kànja Ousmane Sonko donte xarañ na ci jàng na xam na ni ñu seedeel xaalis euh, jàpp naa ne xam na xaalis. ba pare itam tegal na ndaw ñu projet bu ñëpp gëm. Macky Sall bi mu fi muy jël réew mi li la waxoon de li mu wax ni la waxoon de. ba jël réew mi. <laughs> déet <laughs> képp fi taw loolu ngay wax léegi xale yi sax dañu nekk ci TikTok bi naan su ma faloo dama def micro boo xam ne boo waxee rek àgg France. waaye microbe boo xam ne boo waxee rek microbe di sotti meew. c'est ça mais mais léegi nag faaw ñu dellu ci diine faaw ñu dellu ci alxuraan mooy nit ki bu wax dëgg na li muy wax suñu borom rek la war xam ne mu ngi koy déglu xawaar suñu borom koy gis. mais quand même c'est Macky Sall moo waxoon ni deux mandats lay def après mu ablé bu coow li tollee fii. déedéet dafa waxoon ne deux mandats laay def mais yow Macky Sall toogul na day def troisième mandat loolu gën a grave. waaw ba léegi dégg guñ quoi coow bari na nag. ah kon li ëpp solo mooy dañ ñaan teg soo Sonko ci boppam dafa bëgg jël réew mi bëgg yóbbu Sénégal foo xam ne ci Afrique de l'Ouest ñëpp li nga xam ne Sénégal gii agsi na fii tey mhm. moom mëbétam la loolu mu bëgg nag man dama ko ci ñaanal yàlla mottali ko ko mhm. jox ko réew mi ca mu dal te xam ne tamit lépp lu waay wut baa ko ci fitna boo ko ñàkk fitna moo la fay jëlee mhm. muy Macky Sall ak Ousmane Sonko Karim Wade ak yaa et Ba am na yeneen yu ñëw yoo xam ne yu bari yoo xam ne nit ñi xam nga politique gu Sénégal. technique la xam nga lool. da nga wax léegi en tout ci euh, wàllu sarax falaa bëgg a deseen dégg yow parce que tey génne nga sarax boo xamante ne bii mooy saraxu 70 million pour euh, Ousmane Sonko euh, fi nga war a taxaw fi ñu fi ñu bëgg fi mu bëgg taxaw ak yow mooy est-ce que parce que bu njëkk dañu doon dégg rek ci sarax ndekete ay nag génneel nag. génneel suukar génne sondeel ndekete sarax am na ci xaalis sëñ bi kii génne saraxu xaalis xanaa euh, xaalis la ci am xaalis la ci jublu wala mu saraxu xaalis mën na fanq leneen parce que mosuma dégg nit ne na diw génne saraxu xaalis c'est la première fois. Ah yëpp dégg a dégg sëñ Baara. bah oui xaaral ma wax la ñuy saraxe oto nag léegi. yëpp mën naa ko dégg. mais saraxu xaalis oto xaalis ma jënd yaa ko yaa ko njëkk a wax. xanaa xamoo ne takk xaalis par million douze régions yi Sénégal yi jàkk ji da dem jox fa imam ba nangam ak nangam jox li ngay def. billaahi la si laa ilaaha illa ku ko doo wàcc mukk da ci am loo xam ne mbiru yàlla la ndax yàlla moo ne xul illaahu malikal mulki tuuti mulka man tashaa'u wa tanzi'u mulka man tashaa'u wa tu'izzu man tashaa'u maa ngi maa ngi xool ku ma neex ma jox ko Sénégal yëpp bu ñu maasoon Macky Sall na wàcc bu neexu yàlla Macky Sall du wàcc. Macky Sall bu demoon na dem def pexe bu ne pour Sonko du bokk billaahi la si laa ilaaha illa huwa yàlla da koy naan ko weddet teg Sonko ca kaw nit ñi bëgg ko force mhm. mais yàlla may na baatit xanaa xamoon ne sarax moo gën a gaaw ñaan xamoo loolu dégg nga koy sarax a gaaw ñaan ndax sarax boo xam ne technique technique la nag benn code la boo xam ne mi ngi mel ne xam nga téere bi maa ngi ko gis mhm. te mën naa ci yëngal àdduna mi ngi mel ne fii am wifi tey man jóge fa la ñëw ñëpp li connecté ci wifi bi man ñëw gis naa wifi bi Feeling Dakar mais mun maa dugg ci wifi bi parce que amuma code bi. Mhm. exemple ma jël turu Macky Sall man pour mu gën a leer daanaka koy wax date gi 40 la keef gi 20 siin gi sa sag gi mooy saat bu saat bu tëb taxaw 60 laam bi taxaw 30 maa doon ko wàccee ko bi génne ko li mu saraxam dama jëlee sa heure problème bu nit mën a am ci àdduna bi sarax moo ci gën a ci kaw boo xamee sa rawaan ak biddiw ban la bëgg ndax biddiw sams wala xamar wala nangam nangam wala ndox su safara ngelaw moo gën a gaaw sangu téeméeri junni yoon yooyu am réew te képp koo gis mu yor Sénégal fii sarax boobu sax du ma ko wax ndax saraxee na nangam nangam en tout cas li li rassuré ñenn ñi nga xamante ne bii ñu ngi seetaan jataay bi mooy que ni 200 millions yi Ousmane Sonko war a génne ndeke sarax la parce que wax nga ni 70 millions yu mu war a génne yoo xamante ne bi waroon na ko génne bu yàgg c'est la première fois nga ñu mu nekk révélation boo xamante ne bii euh, dina euh, wër àdduna parce que saraxu 70 millions ñu ngi ko soog dégg quand même nii ni leaderu euh, Pastef bi war na ko génne suñ baara alors pourquoi pendant tout yow ya daa deux mois ñu dajalee Ousmane Sonko ay millions jox ko ko matul deux mois ñu jekk ne Ousmane Sonko génne deux cent millions. mbiru baatin la. waaw kon yëf yi bu ko kenn naqarlu ñu ñi xam xam nañ. ñi xamul xamuñu bu ko kenn naqarlu. déedéet ñi xam xam nañ ñi xamul xamuñu. yaa saahiran yaa baatinan yaa waali yaa mutaxalla aslihan na haali dans deux dañ ko dajaleel alal ju bari ci ay millions ñëpp yeewu ñu ne mosu ñoo gis benn politicien bu bëgg a jërëm nit ñi di ko dalee alal di ko jox leen ñu ko dajalee ay benn nit la du benn nit de. du ñaar nit du mbooloo. Mhm. léegi motu deux mois njëkk-njëkk ne yow kenn nit ngay fay deux cent millions léegi nañ xool takk boobu dellu suñu ci yàlla xool ci xool ci suuf mbiru baatin ci kaw ñu xam ne nii nii la. liñ ci mën a jàppee rek mooy mbiru Ousmane Sonko dafa rax te saa su ne baatin di ci feeñ. man personnellement li ma ci xam billaahi la si laa ilaaha illa huwa su ma ci waxoon ñëpp dal seen gémmiñ barke alxuraan. alors euh, fa laay ñëwoon léegi baax a ñaan Niane parce que itam yaakaar naa ni tey danga nga ma impressionné ci euh, wàllu sarax moo tax ma bëgg cee desandi ak yow xool ñi ngay. seetal souvent di leen seetal ñu woo la nii rek nga di leen seetal est-ce que am na ci ñoo xamante ne bi di nga leen wax génneel saraxu xaalis parce que nit ki je pense que bu fekkee ni dafa tawat di seetlu wala muy seetlu ci digganteem ak borom këram wala leneen bu fekkee ni dafay euh, seetlu sarax yi nga koy génneeloo quand même du saraxu xaalis. xam nga bu fekkente ne nit dafay nekk projet boo xam ne ay milliards la wala quelque chose même bu nekkee sax benn cent millions baax na boo ko seetee rawatina mën na la génne na génne nangam ci xaalis joxe ko wala mu sotti ko wala mu jël ko. jox ñu néew dooleem ngir bu xaalis bee génne projet bi moo xam day sedd xam nga xaalis day tàng. Hmm? waaw léeg nga am xaalis boo xam ne boo koy lekk di faatu. ah bon ba oui. xaalis bu tàng jër am na. ñaata nit ñaata nit ñoo nekk bitim réew tabax seen kër ba baax bu naan cëpp Sénégal xëy suba di faatu. ñaata ñoo nekk fii senegal gi liggéey seen kër ba mu pare jàpp bis rek xëy suba faatu te suñu boroom lu mu wax ci alxuraan. may naa ñoo xam ne luñ bëgg a def ci àdduna def ko mais nag insha allahu aminina lépp lu ñuy def ñoom bu ñu ne insha dama ci am na yow yow bamba nit war naa mën a faatu tey billaahi la si laa ilaaha illaa nga jël fanam yokk fanam nit mën naa war a faatu tey nga gis ko ñu ñëw ci yow wala mu feer ba du mën a jug nga àdd ak turam def ko génne ko sarax billaahi la si laa ilaaha du faatu man loolu def naa ko def naa ko plusieurs fois loolu def naa ko garan nit ku faatu ba nit gars yi ma masin na nangam heure bi di dina faatu mbokkam ñëw ci man te pourtant benn ginaar laa leen laaj ak twenty six twenty six mooy vingt six xaalis gana vingt six twenty six twenty six jamono boobu dafay nekk ay ci pense que ay onze mille francs CFA ñoom la ñu sigg di ma xoolaat ma def li may def ten ginaar gi ni leen dem leen bi mu génnee hôpital laa tekk ginaar gi ma leen bu ko kenn rey bàyyi leen ginaar gi dem noonu te ba tey mi ngi dund ba léegi mi ngi dund boobaak léegi léegi mat 5 ans mais loolu du man yàlla moom moom la daa am xam-xam bu ma sol te solu solu ko ñoom te yàlla bu ko defan ci ñoom ñoom du ñëw ci man kon def gi mu ko def ci man mooy wa amaa benn matériel bi ko fa xadis moom laay véhiculer di ko doxal. suñu borom may na la lool ci wàllu euh, ñaan. moo tax ma ne la wàllum sarax dafa bari ay mbir am na ñoo xam ne xaalis bi ñu war a jot day tàng. Mm-hmm. am na ñoo xam ne. xaalis bi lay dëgër. bu dëgëree nag bu ñu génnee saraxu xaalis ab lim la lim lim bu ndax mën na nekk sax lim boo xam ne ab benn téeméer 500 francs mais 500 dañu ko tas mu nekk ay ñaar dërëm ñaar dërëm. xanaa boo saraxee koñ bii sarax koñ bii sarax koñ bii sarax koñ bii ay xale. Mhm. yooyu yëpp day tax xaalis bi ngay wut day décanté wu. mais kon xanaa yooyu ay secret la yoo xam ne mais du ñëpp koy def. mais sëñ Baara xanaa ko nit bu fekkee ni musta jot yenn somme d' argent yi balaa mu koo jot daf ci war a génne ab takk lim saraxe ko. yàlla ci boppam moo ne ci alxuraan yéen jullit leen saraxe yéen sarax li ci gën a gàtt ci li muy fànk mooy deegu ñaaw léegi dama tax yéen di wax loolu. nit warut a jékki-jékki rek am 100 millions lekk ko suñu baara kon. képp ku yor alal ju bari lekk ko yow kase doo ko doo ko fekk maa la ko tey. Hmm? waaw. nit ku du dimbali nit ñi doo yor alal nit ku du yor sa alal doo ci def lu baax alal ji du taxaw xam léeg-léeg nga dégg ñu nit naan la. Ah, saa saa man saa li ma yor kay kenn du ko yàq da yàq moo tax moo tax kenn ko yàq. d' accord kon am na ñuy dimbali di def ay social nekk ci xeetu sarax la rek. sarax parce que nit ki nga fekk ko sax solu yére yu baax. Mhm. nga nekk jënd ko ay yëre jox ko. Mhm. nga fekk sëriñ daara bi toog mu leer ne ay kaamil alxuraan baax na nga jënd ab limu kaamil pourtant ay lim am na nga jënd lim xam lim 21 wala nga jënd lim 20 mooy waxaabu nga am looy ñor di jotoo ko. nga jël vingt vingt kaamil am loo ko boole xaale ko sëñ bi mooy taxaw waxaab looy yóotu day nga ci jot bu gaaw bu dee këyit ak lépp ci jot ci àdduna bi mm-hmm. bu fekkee Sénégal gi nga nekk bëgg a liggéey mënoo am liggéey bu dul kaamil yi nga ci soixante kaamil soixante kaamil bu nekkee Sénégal bëgg liggéey amoo liggéey wutal soixante kaamil boo ko mënut nga jël soixante yi xaaj ko def ko benn trois mois da xaaj def loo mën boo ko mënul nga jël ay doomi tàndarma def ko muy sant doomu tàndarma nga fekk jéng bi yor ay seex nga sarax ko ko loolu boo ko defee balaa mat 24 heures ci kàttan yi da nga am résultat bi yàlla gën a gaaw lu ne euh, voilà foofu laa bëgg a desandeeg yow donc sarax mën na remplacer lu lu ngeen di euh, bind ci seen xalima alors est-ce que sarax sëñ bi mën na euh, régler situation bu mel ni par exemple koo xamante ne bii dafa bëgg am ay kayit di lijjanti ay dara ci ay kilifa parce que ñu bari dañu yaakaar ne loolu ci ñaan rek la ko la ko mën a. la mën a li mu xaxaar xaxaar baatu xaxaar xaxaar lu mu teg xaxaar mooy ñoddi dafa am doole loolu am na ci loxo boo génnee ci sarax du ma ko wax te ne du taxaw même bu dul këyit sax senegal gii rek nga bëgg liggéey rek wala Bamba war laa jox benn këyit wala ko signal boo koy defee ñu lay signal. ah bon bah oui. ak contrat bu mu mën di doon xeetu fi nga koy defee. Mhm. la malaaka yi nga koy defandoo di toog ñoo koy envoyé suñu borom dak suñu borom suñu affaire bi moom jox ko nit ki mu sañaw. macha allah da nga dégg nit ku naan la dama da yëkkati sama wërsëg. da ngay dégg. Mhm. nga di limu ci ceeb ay libar liibar def ko ay ceeb ceeb nii saakub ceeb def ko ab lim saakub ceeb mu tut sax quarante mille. dëgg naa moo ko di tur deret tur deret bu bari baaxut. am na fu mu baaxee ci nit ñi ñenn nit ñi mais am na nit ñoo xam ne waxtu ñu tuuti dañu nekk ci jafe-jafe mhm. mais ci lim boobu boo ko defee liki xalaa kulli xal lépp lu mu bëgg jënd day faju ci sarax kese la macha kon sarax am na solo euh, ma fàttali ne mbokkantoon di nga xamante ne bi ñu ngi euh, seetaan maa ngi maa ngi jéglu comme suñu ma Abdoulaye Wade am ko mos a ne sëñ bi Abdoulaye Wade kon euh, dafa mos a toog béyki ma Abdoulaye Wade li mu daan sarax ma ne ko ab Abdoulaye da nga yëkkati 100 millions jox la kooku moom da doon sarax ay million moom ay milliards sax. moo ne xaaxuma ne gudd fan dëgg-dëgg boo ko bëggee da ngay fonk sarax. non Ablaye Wade moom parce que sëñ bi li nga wax nii mi ngi may fàttali ni Ablaye Wade bëri na ñi mu def ay milliardaires. ma ne gudd fan dëgg boo ko bëggee doo nay. Hmm? gudd fan képp koo nay rek du gudd fan. maa la ko wax tey ngay dégg. kon ñi dàq joxe ñoo dàq gudd fan. ñoo gën a gudd fan. dafa am benn kilifa gu mag fii senegal kilifa la parce waxuma kilifa diine kilifa aada la daal mhm. dénk na ko lii di wërsëg mhm. da ko dénk ndax yàlla day dénk rek nit wërsëg mhm. yàlla du kii day dénk bu ko dénkee ndax xamoo ko nag mu jël ko ndax xaalis dafa am ñetti muy muy bañ <laughs> kilifa gi dafa sax dafa mos a soog soog bu day waar ma dem seeti ko bureau fii ci ñu toog ma ne ko baa xam nga ne sarax moo tax yow nga dem day yor ay béykat mun a teg mun a ma sëñ bi xam naa loolu. billaahi la si laa ilaaha illa huwa nga ne ko mbaadu soog bi da ci doon faatu. ma ne ko sarax ci boppam yi ngay def mun a ma sëñ bi tey bi may xëy sama kër lu mu gàtt gàtt génn naa 5 millions sama oto jox ko ay nit ñi ngi rang ni sama bureau bis boobu la yor am yor suñ bi oto bees sax ñu jékki-jékki produit bi jékki-jékki di rocceeku oto cent quelques millions produit bi jékki-jékki rocceeku loolu daa yéene maanaam. loolu pexe la sëñ bi. korte mbël mu lañ ci produit bi mu deñ. ah loolu ba oui mën naa nit mën naa yor Mercedes Benz bu bees taq may bag nga sànni ko kot ma la ci pneu bi. nit ñi mu yoree Mercedes Mercedes jege tàkk mais boo xamee gàllaaj day ñëw sa matériel boo xamee gàllaaj dëgg lu ñu la sànni day ñëw ci oto bi nit da gis ku yor xool may bag mooy dawal nii Mercedes bi jege-jege di tàkk lool lan la da ngay yaakaar ne ay ay affaire la ay mbir la. moo tax nit ñi dangay ngay da ngay ci suñu borom di ñaan suñu borom. di sàkk sarax di wax lu baax yéene nañu lu baax boo yéene nañu lu baax rek yàlla yéene lu baax. Macky Sall di oto bi oto bi tàkkoon na xanaa korte la woon. loolu yaa ngi wax. <laughs> alors euh, ma fàttali ne maa ngi euh, dalal ki nga xamante ni mooy Serigne Bara Niane macha allah yàlla may ko lool euh, xam-xam c'est le international donc moom c'est le seul boo xamante ne bi itam ni ma koy faralee euh, di euh, wax yaakaar naa ni yàgg na régler ay situation euh, ci ay réew yu bokkut ak sax Sénégal naam fi mu nekk nii nag réewam daf ko gën a soxla sëñ bi dama bëgg a desandi yow ci vraiment wàllu sarax li ci wax tey dafa am solo tellement tellement tellement mosuma woon xam quand nii ni sarax noonu laa amee importance que dina fanq de dina lijjanti ay këyit yu nit war a am dina lijjanti contrat dina may liggéey mais quand même est-ce que sarax mën na egg ba ci may nit borom kër bu. may. nit borom kër nit ku. waaw xam nga may laaj bàmba nit bu juddoo. Mhm. dañ ko reel xar. Mhm. loolu lu mu tudd loolu mu tekki. Mhm. dañ ko ganalee ki judd. loolu sarax la. dëgg nit bu faatoo ñenn ñi dañ ko reyal nag ñenn ñi mënoo nag daal dem peese ndawal teewul ndawal la ndawal ndawal la. loolu sarax la. dëgg naa dëgg. <laughs> waaw nit bu fi ñëw dañ koy saraxal buy dem dañ koy saraxal. am ñaaw sax bu ñu juddu dañuy faral di joxe bopp da joxe tàngal ci tudd bi ñëpp dem léegi bi ñu takk sëy bi dañuy saraxat na dañuy wut guro ak tàngal nit ku ñëw tibb di la jox ñu yóbbaale am na ci ko xam lekk na ci guro ga mais xamu ki ñuy takk da nga ñëw ci koñ bi rek ah, sa am guro nga lekk donc takk laa ko jëlee loolu la de mhm. mm-hmm. moo tax ñu sarax guro gu weex ak guro gu xonq te pourtant am na ci lim boo xam ne ci sarax mm-hmm. ci guro bu mayee nii ba pare guro goo nga am ci benn bu weex benn bu xonq boo ko dëbbee ba moo am loo ko boole jigéen ju ko def balaa man ñeent fan nga am jëkkër. ah mais nañ di maytu xobu gure yi ni mayee noonu xobu gure yi. nañ di nañ di moytu waaw xëy na ñëpp amuñu xam-xam sulu xilma alimin xam-xam boo gis am na xam-xam bu gën a féete kaw. Mm. xobu gure boobu boo saay-saay jëlee saay-saay bi xam mystique xam-xam-xam daal. xam mm. xam comme ni ma xamee li may waaj a mm. na yàlla def képp koo jëlee loo jëf yàlla du fi ne xobu gure googu am na benn baat boo ko ci bindee ba lakk ko sëy bool du am ñaari weer mu tas. dañ ñaar musal ci saay saay bu am xam-xam. waaw te am na. mais sëñ bi euh, est-ce que du kon euh, Mame mbay Niang lii la xam ci sarax ba ne alal ji daf koy dem saraxe ci daara yi dafa comprendre déjà yow li ngay wax nii.